ak mami waaye nag kaama yëgal la waaye kaama yëgal la mami Cobra sa doom jooju tamit ma ko yar de ma ko yar daa muus. Eh, hmm. mënuñ leen maa ngi jël les ci dee ko. waaye nag waaye yow ci yow kaay ma yëgal la bëgg nga ma te zere zere zere zere bëgg nga ma. bëgg gi des na nag wax ba dëgg yàlla. waaw da ma waroon woo naa ma del fay wéeru ba pare di ma conseiller waaye da ma bàyyi ma ànd ak sama sago. képp yow maam ni may defanteeg yow maam nga di ko wax sa tekk bi maam. ay ay man maam maam Ndiaye bàyyil wax maam Ndiaye bàyyil wax mbaa la mbaa yëg nga ni mais libre laa la def ci direct bi.

ah waaw. te nuuru laa sama xarit la xam nga ni sama xarit la nuuru laa. Jamil damay def su ma ko woowoon léegi daf may indi bu ma koy woo mu may indi si. waaw man ko réer naa nag bisu ngoone. nga <laughs> waa léegi man man man léegi man recours laa leen doon bëgg a yéen du ngeen ma yóbbu cyber criminal waaw ah bul génne déedéet waaw bul génne nag bul génne man damay wax rek defuma recours <laughs> ah man defuma recours bi man suturaal ma man li ma def dafa bari nag bii ngoone suturaal ma même confrontation bi ngay woote confrontation bi dimbali ma rek bul wane samay vidéo billahi yeey. li war a na maa lay <laughs> <laughs> ba pare ba pare ñu gën a rëy làmmiñ nag ñu gën a rëy làmmiñ di wax rek. yow ñu ne Tike da la doon def demande nga ah. waay waay waay waay waay waay mami Cobra tamit ma nga ko yar de lii yëpp moo ko xalaat wala dañ ko ko xelal. ma nga ko yar gisoo mami Cobra boo déggee ni muy waxee ci internet bi rek man sama maam sama baaj dana ma yar waaye sama maam dafa nekkoon ci wet bi de man sama maam daf ma yàq biir ngoone mën naa togg nag damaa mën a togg nag maa yëg nga loolu. mais damaa dof waaw damaa daanu garaawul di nga jëlaat buy ñëwaat ah, <laughs> ah il faut jëlaat ma ma rectifier samay erreur nag il faut nga jëlaat ma ma rectifier hmm. baax na bii kon maa ngi lay woowaat waaw gi mbaa di ma yóbbu ah. waaw baax naa pare nga maa ngi lay woo maa ngi lay woo naa la woo suma pare. bisu ngoone direct live en direct